بيت الولايات مفتاح الظلام ومفتاح الخلود وختم الكل لبيك في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكوينيو تبجي ñu topp ci chaîne TV ñu ngi leen di nuyu di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq ñu ngi nekkoon ci jotaayu saxaaba yi toll ci kenn ci góoru yàlla yi nga xam ni ñoo toppoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi ngi ci juróom benneelu at bi ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jenn góor a ngi nii moom la muarrixuun di wax ci mom ne yadribul hisara al iqtisadiya ala quraish kii a encerclé won quraish di économiquement galankor sen lek ak sen nan ci sababu sababu ab ngëmam kooku sumata tu ibnu Usal, tu ibnu Usal, ken la ci ko xamanteni euh dafa nekkon kilifa ci nek bour ci bir fofu nga xamanteni moy yamama yamama muy dekk bu siiw nga xamni ci mujju ga danañ xam euh, la ko gëna siwal ci ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam ndax bokku na ci ka fa njëkk woote bi euh abou bakkar ak sahaba yi mom euh bi bi bëgge yaatal ab wotem ci juroom bennelu at bi ginnaw gaday bi dafa bind lenn ci juróom ñetti bour yo xamanteni ni ñoo nekkoon ci presqu'île arab bi ak li genn presqu'île bi muy arab yi ak ajami ci biir juróom ñett yoyu bokku na ci kamu jaglelon ab letter moy sumamatu ibnu usal al Hanafi. sumamatu ibnu usal hanafi kenn la ci jamono jahiliya nekk sang ci biir aw xeetam te mooy waa Yamaama nekkoon koo xam ni ndigalam dañ koy topp nekkoon buur boo xam ni ku ñu bàyyi woon xel la bi mu jotee lettre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yàlla dugalul ci biir xolam ab ngëm waaye mu am ci seytaane dugg ko mu am ci mer bu metti lool ba yéene sax ne dafay boom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yene ba lol yaayam moko ko ci mujjee yebbi mu bayiko ko waaye batay mi ngi yoral julit ñi ab fitna ah, ba yalla jaarale na ci ay loxom mu ray lu bari ci andando yonent bi alayhi salatu wassalam mom sumama mi momu euh ah, jamono ji nga xamanteni yene na taq nak fabu juge yamama ne day def umra yóbbaale aw gàttam ne su demee dafay rendil xërëm yi ci la foofa ci yoon wi mu wàcc ci benn bërëb boo xamante ni euh, soriwul dara Madina bi mu wàccee foofu euh, yàggul dara rekk benn njëgg goo xamante ni mu nga bàyyee woon bàyyee ko woon Màkka jëm Madina ci xeet ci àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu fekk ko foofu far ñu jàpp ko biñ ko jàppee indi ko Madina euh, xàmmewuñu ko waaye bi ñu ñëwee dañoo ñëw yeew ko ci poto jàq yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi yonent saa salaam génnee ci jàq ji seen ko ñu yeew ko mu laaj saxaaba yi ne leen waaw atadruuna man axastum ndax xam ngeen ki ngeen jàpp kan la ñu ne ko déedéet qalu la ya rasulullah ñu ne ko deet xamuñu ko de mu ne len hadha sumamatu ibnu usal al hanafi ki moy usa ki moy sumamatu ibnu usal al hanafi buru yamama fahsinu asara na ngeen rafetal ni ngeen ko jappé en tant que prisonnier ndax ki kilifa la yonent bi alayhi wassalam delu wat keureum dajale faaw ñam bu baax yonne ko deluit it rattal ko ci gelem gi ab so ab mew di ko yet ba bas yonent bi alaihi wasallam ñew ci mom ne ko waw ki kan la sumama yow lu nek lu nek ci yow mu ne ko ah man dal lima japp moy bo ray ngeen borom yi deret boo leen jéggalee jéggal ngeen ko am kóllëre su dee alal ngeen bëgg it loo leen ma laaj ma jox leen ko yonent bi salaa salaam bàyyiwaat ko foofu ci yeew gi ñu ko yeew teewul ñu ngi koy teral di ko berndeel ba ci ëllëg sa mu ñëwaat ci moom laajaat ko mu tontuwaat tontu bu mel ni ba mu tontu woon démb yonent bàyyiwaat ko fa ba ci ñetteel fan bi mu tontuwaat tontu bu niroog tontoom démb bi mune nak mune ko nag moom yonent sa mu daldi di ko ne acca kon yeewi len mako biñ ko yewé ñu bayiko bopam suma matu daldi genn dem ba yegg ci bërepp bo xamanteni mom moom la wax ci ben tanuma ci wetu madina lu jégué baqiya fofu foofa euh ci la taxaw nandal ab gattam mu daldi raxasu ba set daal di dellu ci jàqu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu yeggee foofu rek ay jullit yu bari mu fekk leen fa mu daal di fësal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fii la ko yàlla dugalee ci lislaam mu seede baatu seede yi waaye mu wëy jëm ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa muhammadu wallahi maa kaana ala zahril ard wajhun abghadu ilayya min wajhik maa ngi lay gijal ci yàlla ne su ma la waxee dëgg amul benn jëmm ci jëmm doomu aadama yi mu gënoon bañ ci yow lu jiitu tey waaye tey jëmm yëpp yaa ma ci gën mu ne ko maa ngi lay giñal ci nii amul benn diine moo gënoon bañ lu dul diine gi ngay woote te tey diine gi moo ma gënal diine yëpp waaye amul dëkk bi ma gënoon bañ ci dëkk yi lu dul dëkk bii nga xamante ni ci nga nekk di woote waaye tey dëkk Madina bi moo ma gënal dëkk mboolem dëkk ju dul moom tey nag yàlla natt woon na ma faat naa lu bari ci say àndandoo ana lan laa mën a def tey ba racheté wu ba mën a saafara góom-góom yeneen bi saasam ne ko laa tasrib aleyk yaa sumaama amuloo genn yeddaange yow sumaama réer rek moo la ci yóbbe woon ak ñàkk xam fa innal Islam yajubbu ma qabla islam so ci duggee day maasaale far sa mbollem jumte yo defon ci biti l'islam kon na nga yëg ni yow amuloo dara lu l'islam di top mu daal giñ mu wallahi la usibanna min adaafa ma asabtu min ashabik mu ko giñna dina ci yalla ci ni dina sobu ci xare xexal l'islam suma faton fuk dana lu lu ko lu ko ful ñaar fuk manam ci yéefar yi nga xamanteni ñom la laa jambar lol ndax yalla bekk ci man ma euh racheté wu kéro la fasiyene nak wayal dem umrah, ca fi nga xamanteni mom moy kaaba ga ndax bul fatani yonam ba yeggu ca waye legi fabu na yoraat na benen yene bobu ab kat la won bu don dem di umra ji ci sen umra waye legi nak la khasuna fasiyene nek ku umra yonent bi alaihi wasallam dal di koy téye xamal ko yan bat lañu wax ci l'islam suñuy umra xamal ko it ban pas-pas lañu yor ci kuy umra ci l'islam kero ba mu deme mom sumata ba mu yeggee fi nga xamni moy kaaba gi di wër nan labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك موموي كي نيك لبيك فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا كي لا يالا وسغل موي جوليت بي جيك تالبيو سي مكة في أنام بي ndax mom mo ñëk ñëw yone sa salam jox ko batu labbayka yi moko ko def ci kaw suuf ci ginnaw juróom benel at bi ci gaday bi moy ki nga xamanteni moy sumata te ibn kero quraysi di biñu ñu kaddu yoyu ñom ñep ñu fëx dal di genn ne ana kaddu gi ku koy wax biñu ñu ñu ne ko waw yow sumatu ah mbaadu da nga murtad mu ne len sore naa ak murtad dama top diiney deug damay top muhammad sallallahu alaihi wasallam. xale yi bëgg jël ab xeej bëgg koo jam ñu ne leen xanaa xamu leen kii ngeen bëgg jam buuru yamaama la bis boo leen ko jamee kon dinañu dee xiif ak mar ñu da mu daal leen di wax ni ñëw leen dugg ci diine yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo leen ci duggul man bu ma delloo yamaama dinaa tee njëgg yépp lekk ak naan dootul jugeeti yamaama di ñëw ci yéen noonu la ko defee it ba mu demee ñibbi mu téye leen téye seen dund dara ñëwatul ba yëf yi tar lool ci waa quraysit mu daldi di ñu daldi di bind lettre jëmale ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah, bi mu ñëwee yonent bi daldi lire lettre bi bi mu liiree lettre bi ñu ne ko na nga yëg ni kat yow da nga doon jokk mbokk waaye léegi kat mel na ni yaa ngi dog mbokk su maama mi dugg sa diine dem na tay lek ak nan ñi ngi nii di de xif ak marté ñun say mbokk lañ yonent bi mu liré lettre bi ci la ne ko bàyyi bayi ak sen lek ak nan muy ñew ni ngi leen ko daggalee won motax ci njalbeen bi ñu waxon ni moy ki nga xamni ni moo encerclé woon màkka téye seen économie ba wul ci ñoom kii mooy sumama sumama kéro bi yonent bi salaa sam aduna àdduna abubakar tak xaré ngir jàmbaarloog ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi musaylamata Euh, ngemb tey woote woo ab yonent moom kii nga xamante ni mooy sumaama dafa taxaw ne leen inna muhammadan rasulullah la nabiya baada ne leen muhammad salaa sallam ndawalub yàlla la yonent du ñëw ci ginnaawam mu ne leen nag na yëg ni li wàcc ci yonent bi mooy xaamim tanzilul kitaabi min allahi al aziz al alim njalbeenu suratul xaafir ba mu jeex bi mu jàngee aaya boobu ba mu jeex mu ne leen nag ayna kalaamullahi haada qawlu musaylama lan mooy waxu yàlla ci mu musaylama lii muy wax naan yaa dif da'u niqi maatu niqiin mu ne lii mooy li ko yàlla wàccee ci moom ah yow mbott bi mu ne lii mooy alquran alquran bi yàlla wax yi ko moom moom musaylama mu ne leen kan mo koy comparer ak waxu yalla gi yalla di wax ne ghafiriz zamb qaabili tawb sadidul iqab zit tawb li keroog la musailama feñal ci aw nitam daldi di ci yoonu yalla jazallahu sumamata ibnu usal anil islam wal muslimin wa khairah, khairan, wa akramahu bil jannati allati waida al muttaqun ki moy sumatatu Eh, sumamatu ibnu usal eh, radhiyallahu anhu wa ñi eh, ngi taxawlu fofu ba benen yoon ci jotaayu sahaba yi di sante di gërëm sunu technicien di Cherif Mbay di ko ñaanal gudd fan ak wér wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain بيت الولايات فيه Sacro,